sarax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa le troisième tigre de Fass Gris Bordeaux ma yey yàbbi ca combat ba war a dox ci diggante Balla Gaye ak Boy Niang 2 loo wax ci diggante Balla 2 ak Boy Niang mu ne loolu du combat Gris loo wax mu ne loolu du combat laa wax ñépp xam ne Balla Gaye bunt bu mu jaar ba raw la bëgg waaye coow li coow li sama diggante ak Balla Gaye la sama revanche ak Balla Gaye mooy coow lu rëy li moom gannaaw mooy lion bu géejawaay kay na def yi ne man ak Balla Gaye 2 dañoo a consommer suñu revanche est ñaar xam li des sama carrière dara dootul yomb mbër muy dof dof lu ba jël fi Gris Bordeaux doo ci génne noonu beneen bi mooy tafaatin bi ñuy wax amul benn promoteur bu ma proposé tafaatin promoteur bu ma contacté Balla Gaye 2 nga may wax Boy Niang 2 wala kenn mësuma proposé tafaatin kenn mësuma proposé Lac de Guiers coow li coow li kay mooy sama diggante ak Balla Gaye 2 ba ci boobu la nit ñi war a wax waaye diggante Balla Gaye ak Boy ko fiche d'adhésion bi yor règlement intérieur bi ñu jox mbër yépp moom ba mu jotee fiche ba amul lenn lu mu ci def lu dul baare loole nag la muy firndeel mooy respecté wu ba loolee mooy wane ne laataa ñu koo dàq dàq na boppam waaye nag man Mbaye Gueye am naa ci lu ma naqari ndax Papa sama doom la li ma bëggoon te di ko ñaan mooy mu des Fass jeexale fa carrière moom kay dafa bëggoon a dem Fass yombalal ko mbir ma ndax bu ñu fàtte ne zalloo ñun waa parcelle de face et face à trois équations ñetti mbir la Papa jànkonteel bi ñu ko dàqee face ba ci njëkk mooy day wuti écrit wala day créer écrit boppam bu dee day wuti écrit bu mu bokk ñëpp njort nañ ne Rock Énergie la jëm xam nañ digganteem ak Modou te jàpp nañ ne bu jógee face fa la jëm bu deful loolu la muy def mooy créer écrit boppam te bu dee day créer yëfi boppam dana def assemblée générale defar bureau def ay démarches digganteem ak Siteu taxaw na beneen ba ca topp mooy bu jógee ci loolu faaw mu wuti beneen licence bu bees gannaaw nekkatul mbëru Fass licence boobee moom dañ na Papa Sow wuti écurie wala mu créer écurie boppam ba noppi wuti licence ñetteel ba mooy mu wuti manager ñépp xam nañ ne Cheikh Ndiaye mandataire bu écurie Fass moo nekkoon manager gannaaw jóge na Fass faaw mu wuti beneen manager bu ñu jàllee ca lit sans frappe Sélémélé mu ngi ci dynamique bu baax am ci semaine bi samedi 21 décembre ca Iba Mar Diop ngor dee dana taseeg boo yëmbal dimanche 22 décembre ca Iba Mar Diop Serigne Ndiaye dana taseeg Libidor bu dee lit sans frappe samedi ak dimanche ca Diofior CLG ak fans club Yékini ñoo fa teg 3 millions dimanche 22 décembre ca Adrien Senghor Mor Sène ak ñoo fa teg 1 million fa ñuy jeexale mooy tiis wa dalaat axlu làmb Luc Nicolaï ma taxawal diggante Ama Baldé ak leen jox dig daje ba ëllëg incha allah dig daje